mu jàll ci li nga xamante ne moom mooy deuxième question bi kii mu ngi lay nuyu Oustaz mu ne moom du julli chaque jour donc euh, des fois lay julli des fois mu toog lu yàgg du julli léegi mu bëggoon xam loolu l'islam lan la ci wax ak euh, lan mooy àtteem ci li nga xamante ne moom mooy ci kanam yàlla. xam nga dafa bari ci réew mi ñoo xam ni seen julli du chaque jour. surtout ñun jigéen. <laughs> xam nga tey jigéen ji nga xam ni sax moom dafa am ngànt. ngàntu jigéen. dëgg kooku am na ngànt. Mhm. mais koo xam ni sa julli mi ngi dépendre ci ñaata yoon lañ la tàggee nit ci semaine bi <laughs> am na ñoo xam ne buñ leen tàggee nit trois jours après dëj bi yépp dañuy julli. dañuy tiit ku ci am xarit bu gaañu. Uh-huh. même ñeent fukki guddi yi bu dellusee da ngay julli waaye looy wax ba mu paase. ku ne xam na li ñu wax ci faat waxtu est-ce que xam nga ni bàyyi julli définitivement ñoo xam ne yow moom danga julleetul bàyyi nga bokkoo ah. moo gënal yàlla julli tey bu subaa doo julli ah waaw ah, ci jullit oustaz parce que loolu jikkoy naafeq la waaw c'est vrai te naafeq moo gën yéeféer moo gën naafeq waaw c'est vrai alxuraan ci tàmbalima suuratul baqara dafa am ñetti catégorie inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tunzirhum la yuminuuna mooy ñi nga xam ni dañ ne yàlla ñun julli wuñ ba gëmuñu la nekkal ci jàmm ñu nekk ci jàmm yàlla ni ñooñu d'accord am ñoo xam ni wa ida laqu alladina amanu xaalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un am ci ñoo xam ne buñ dajeeg jullit ñi dañ leen di wan ni ñu ak ñoo bokk diine di semblant bu tayee ñu jaamu yàlla gannaaw suba du jaamu yàlla yàlla ni ñooñu defuma ak ñoom nenn parce que juste ñu mm. au moins yéeféer moom honnête na ba ni yàlla julliw ma naafiq bi moom day wane ni gëm na yàlla te gëmul yàlla mooy bu tayee mu julli bu gannaaw suba du julli te yàlla daf ni yéeféer dana ko mbugal mais waxul nu mu koy mbugalee mais naafiq nag dañuy innal munaafiqiina fi darakil asfali min an naari walan tajida lahum nasira yàlla def ni bu dee safara am na xóoñ xóoñu safara ëllëg mooy doon naafiq yi ñooy gën a metti mbugal parce que justuñu ah, euh, xamoo ni kii yaa yàlla moo gën a bañ nit ku foo waaw ah, loolu la gis nga sénégalais ni muy bañee nit ku foo moroomu nitam bu foo koo xam ne li mu lay wax amul noonu la yàlla bañee nit ku foo yàlla dafa bëgg koo xam ne da koy wan ni maa ngi lay jaamu ngeen d' accord. wala nga wan ko ne d' accorduma jaamuwuma la mu ne amul problème. mais tey lii suba lii yàlla d' accordu ci. kon la muy def mooy na xintewoo jéem a taamu julli parce que awwalu maa yuxaasabu bihi al abdu yowmal qiyaam assalaat li yàlla njëkk a réglé yowmal qiyaam mooy julli. mais oustaz ñun jigéen ñi d'habitude dama koy gis sax lu bari d'habitude suñu gisee li nga xamante ne mooy suñ baax ba pare dañuy faral di am baisse de foi ndax dañuy faral di sawar bi. Mhm. duñ ko sawarati. léegi loolu lan moo ci pexe ak yan solution lañ ñu mais seytaane moom moo koy def seytaane moom moo lay tàyyelloo mhm. mooy rey sa yaram moo la naan ah mën ngaa nelawaat ba onze heures de jarul ngay teel a jug de yooyu yëpp seytaane moo koy def mhm. donc loolu nit daf koy xam ngay bëreeg seytaane même bu fekkee da ngay yéex a julli ngir ngànt parce que julli bu la rawee mën nga koo dabaatal mooy danga koy fay. da nga koy fay waaw. bi tàkkusaan di jot am na ci ngant lum la fekk. loo xam ni mënoo koo dagg di julli mais bu tàkkusaan weesoo fay ko. dëgg la. tuug doo julli benn waxtu. amoo benn ngant. te est-ce que xam nga ni kudul julli kudul julli li sharia wax mooy même boo tabaxoon jàkk maye ko gratuite. ku ca julli ñu bindal la bàkkaar maanaam yow doo am tiyaaba ah dul julli lépp loo def ci lu baax yàlla sens contraire la koy jëlee tabaxal téeméeri jàkk ñu naan diw ak jàkkaam yu bari yi te yow mi ko tabax doo sëpp sa jëbi ci suuf yàlla nee na sa jëf ji zéro la boo déggee am ñu yàlla naan ulaika alladina dalla amaluhum mooy ñi nga xam ne sànq nañ seen jëf ñàkk nañ seen xaalis daj nañ ay coono doon ci séentu tiyaaba or ka jële wun ca tiyaaba mooy doo julli bëgg ni da ngay ñaan mu nangu doo julli bëgg ni da ngay am responsabilité ci diine heure boo noppee julli amatoo responsabilité ci diine sharia moo ko wax kon kooku li ma koy dénk mhm. na concentré wu bëreeg ba kanam di julli te ñaan yàlla mu nangul